Mm-hmm. honorable nuyu nañ la. waa maa ngi leen di fay. honorable yaa ngi ànd ak sur 313 digital nu bëggoon euh, waxtaan ak yow ci euh, sortie bi nga xam ni euh, président Bassirou Diomaye Faye def na ko tas li nga xam nag mooy assemblée nationale en tey jii nan nga ko mën jàngatee honorable bon parce que moom li ma koy jàngatee mooy comme ni ko Sénégal yi bari jàngatee ma bettu ñu man man bettu ma rawat na man mi nga xamante ni xam naa même xamoon naa date bi nga xam ne sax si li ñuy def élection anticipée comme yàlla dogal na bari naa information yu may man de recruter moo tax bi ma xamee loolu bi ma xëyee démb ak barki démb tey yëpp maa ngi defar sama bagage sama bureau. Mhm. Euh, ndax tey comme xam naa ne aussi tamit tey le président di def sa assemblée lam defoon lépp ci ay naxe la ko doon def parce que wan ni leen sama kàddu du dara. bind na bi lettre yónnee leen ko waaye du ma ko respecté loolu jàpp naa ne Sénégalais yi ñoom ñooy figé loolu mhm. mais li ma si wax rek mooy président de la bu nekkee day tas assemblée comme article quatre-vingt-sept bi wax na ko lu leer bind na awi laaj li nga xamante ne mooy euh, conséquence ne laaj président assemblée premier ministre mais waroon na sukkandiku ci loolu rek potos ensemble mais warul wax ay détails yoo xamante ni pour man euh, loolu du argument quoi pour man parce que day wane ni kon affaire politique politicien benn boo ko yaakaar def moom ci la sukkandiku mer ba def li mu def nii Sénégalais ñoom ñoo ko fal Sénégalais yooyu noonu na leen di bàyyi xel à tout moment moom programme mooy bu gagné woon tey am na ay loi yu mu bëgg tas mais pourquoi mu doon def référendum tas lépp xaw lan moo tax aussi tamit mu nekk ba léeg nii moom muy doog a dugal ay pro ay ay procédures yoo xam ne depuis juróomi weer waroon na koo dugal te dugalu ko. yaakaar naa loolu it euh, bon politique politicien la pour man. Mhm. kon jàpp naa ne yow def na li mu war a def yoon may na ko ko tas na ko li des mooy jàpp na élection yi comme ni ko euh, décret loi bi waxee bu décret bi nga xam moom mooy tas ensemble yi décret boobu mooy euh, li nga xamante ni moom ci lay sukkandiku pour convoquer li nga xam mooy corps électoral bi mhm. nee na le 17 la koy def muy dimanche le 17 novembre le 17 novembre ak le douze ça parce que deux mois bon dañuy faral dem ci élection yi après ëllëg euh, képp koo xam askan wi fal nan la nga xamante ne askan la fal mais jàpp naa ne ñun lan doon wax bi ñuy xeex Macky Sall mooy Macky Sall juru woon jox majorité mais woon kon loolu laay war a delloowaat askan wi ko ñii juru ñu jox majorité majorité bi ko xaaj jox ñu jox ñii lii jox ñii lii pour Sénégal mën a équilibre su ne ko amul dictateur mooy am ci dëkk bi te yaakaar dictateur bu amee blocage am rawat na ay ndaw yoo xamante ñoo jiite réew mi te duñu laaj xalaat mm-hmm. alors tey jii ci mbir moom ñu si bëri jàpp ni euh, kii di président dafa tas assemblée nationale euh, pour rek bañ ñu daaneel li nga xam ne nag moo di euh, gouvernement wu kii di premier Ousmane Sonko ah tey jii nan nga mën jàngatee loolu tamit. waa xam nga daanaka premier ministre gouvernement Ousmane Sonko nit ki boo daanee boo ko daanee gouvernement bi am na sañ-sañu boo ko daanee mu sampaat ko hmm. loolu am na sañ boobu noonu mais loolu lépp ay détails la yoo xamante ni ñoom bu ñu waxtaanoon yooyu yëpp mën na see bañ a bañ a bañ a àgg mais hmm. lii am am na ba pare moom. dafa amoon lu mu waxoon barki démb bi muy yónnee lettre assemblée nationale wala leen DPC bi le treize xam nga DPC bu fekkoonte ne duglu ko woon ci li nga xamante ni mooy lim def kon suba situation bi wax ni yëpp kenn du ko wax. Mhm. mais comme yàlla dogal na maanaam moom moo ko waxoon moo weddi boppam. Mhm. wax waxeet am na ci ñetti président yi ma si jël yëpp muy Macky Sall Abdoulaye Wade ak Diomaye Faye mhm. léegi askan wi nga xam ñoo bañ waj waxeet ba ku waxee ñu jël ay décision si am na am nañ am nañ am nañ beneen euh, euh, euh, succès boo xamante ne war nañ jël décision si loolu. Mhm. situation fi mu toll réew mi la mu waroon def mooy dèjà bi mu demee fële ndar fële nga mooy Mbour. dafa waroon a déclarer deuil national ñaareel bi mu jéem a xool nan la ñuy mën a fexe ba loolu dañ ci réew mi. Mhm. xool problème accident yi oto yi tàkk yooyu lan moo leen di taal. jéem a xool ndaw ñi ñu dox leen maanaam ay poste de responsable ñu liggéey parce que bul fàtte ne ndaw ñi li tax maanaam ñuy dem si gaal yi mooy ñoom si seen jëmmi bopp dañoo amatul liggéey fi noo liggéey a dàq nit tam bu ñu dàq la la des mooy nga dem wuti foo xam jàpp nga ni yow war nga faa mën a amee métier war nga faa mën a amee liggéey lii mooy li nga xamante mooy li si am ndaw ñooñu dañ leen war dellu si waat seen yaakaar ba pare maanaam jàppale leen pour ñu mën a am liggéey am formation jigéen am ay financement loolu la ñuy xaar si xaalis la loolu pour man du actualité actualité bi mooy nañu fexe ba ndaw ñi ak leen digo askan wi ñu mën ko def ñun nag pare nañu ñoom askan wi maa ngi leen taal loxo ñoom ñëpp ñu ñëw sama coalition bi nga xam naa ko jiite ñu fas yéene dem si élection yi pour laaj baat askan wi ngir que ñu mën a am ma surtout boo ni lépp lu diina bëgg dañ koy def lu askan wi bëgg ñu def ko ba nga xam ne kalaaw Cheikh Omar Diagne gi suba dañ dugg ay loi yoo ni dañuy aar suñu kilifa au chef lycée parce que loolu mooy li jaarul si réew mi fi d' accord honorable ci loolu sax euh, élection yooyu ñu dëgmal gis nañu yi ñu weesu mu présidentielle yi nga taxaw assumer euh, jàppale ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba tey nag gis nga euh, li nga xam ni lancé na ko la fois passée muy cette nouvelle responsabilité est ce que tey pare nga ci élection législative yi nii nga dem ànd ji ak Amadou Ba boobu nga xam ni moom nga doon soutenir ci élection weesu. dàquma ànd ak kenn ba des waa benn boo ko yaakaar benn boo ko yaakaar dong laa mënta àndal waaye ku man di doon ci élection yi mën nañoo ànd na maa demal man dama ma àndaloon ñoo xamante ñoom la àndal man su boobaa damay xool li nga xamante moom ñoom moom la wax ñu mën ko def parce que loolu yàpp naa ni mooy li gën euh, ñun ñu ngi def suñ coalition coalition boo xam tàll nga ñu loxo danañu xool ba xam dañuy ànd ak yow wala du ànd yow benn boo ko yaakaar daal laa mënta àndal Amadou Ba boobu may wax bi may ànd ak moom tamit dama ko àndoon ak pour intérêt Touba moo tax ma moom ñi ñëw waxtaan bu fekkee tàlluñ loxo dañuy demal suñu parce que am yàlla yàlla ñàkk yàlla yàlla parce que nag yàlla rek moo fi nekk keneen nekk fi moo tax ñun euh, du ñu ko dénk si kenn ku dul yàlla subhaanahu nga xamante ni euh, moom rek moo jaral dénk ay loxoom te ku ko dénk say loxo mu téye la ko te maanaam làq la foo xamante ni yàq yàggu fa ndax nit moom bu dee yeewoo ko nelaw ak a yeewu ak di wax ak a fàtte ak di mm. wax loo xam ne dëgg la ak lu dëgg ak di naxaate yooyu kooku du nit koo xam ne kun war a wóol la ba dénk ko sa bopp kon moo tax lépp loo xam ne dañ koy def suñu bopp kooku te xool askan wi nga xam te ñoom ñooy joxe eh, ay cër mm. te xam ni ñun fi nekkoon ak am dañu fa yóbbu am ñun fa remplacé lu mu yàgg-yàgg dañu fa remplacer moom mi euh, tey bu tasee ensemble sall bu toogaatee fii ak cinq ans askan ñoo koy tas si boppam ci tas d'accord mais mais euh, <laughs> Rabol ndax euh, livre rouge bi mën nañu xaar balaa élection yi mu génn. waaw livre rouge moom c'est sûr dana génn balaa élection yi parce que loolu moom nekk loo xam ñu si liggéey liggéey bu am solo ndax demande sociale pour population bi defuma ko pour kii dama ko def pour réew mi léegi si bu ñu comme ni ma la ko waxee loi bi nga xamante mooy aar kilifa diine yi dinaa ko déposé war naa ko déposé ensemble sans façon ko li nga xam mooy peine de naa ko ensemble sax loolu nag bu fekkee askan wi bu ñu yóbbuwaat foofu noonu bon ñeneen ñu ko mën a àggale ñu àggale ko xam ne liggéeyu Sénégal moom du jeex si ensemble sans lay yem ko jërëjëf honorable mbégte la woon nañu dalal si 313 digital ngi lay jaajëfal lu a baax alors Momo ñoo ko euh, déggandoo nan nga jàngatee aussi réaction kii di euh, Bara Dolly euh, léegi léegi ñoo ko déggandoo ah. <laughs> le livre rouge. <laughs> bul <laughs> le petit visible le gris. petit visible. <laughs> allez-y donc euh, xam nga xam nga xam nga xam nga euh, je pense que réew mi dafa jëm. Mhm. ci ci ci lu étape bu sérieux aujourd'hui yaa ngi dégg Sénégal yëpp ni ñuy yuuxoo ci euh, état bi nga xam ne ci la réew mi nekk te tey jii ñu am ay njiit yoo xam ne dañoo war a apporter des solutions par rapport à ces problèmes là. Mhm. mais loolu itam ni si exécutif bi amee role bu mu war a ak. Euh, gouvernement bi nekk en place. Ah. noonu la ñu war a amee tey jii un pouvoir législatif fort boo xamante ne nii dina mën a lijjanti lu bëri loo xamante ne tey jafe-jafe askan wi la. Ah. donc loolu suñ ko soxlaa nag wax dëgg yàlla euh, dañuy soxla des députés yoo xam ne tey dinañ am taxawaay boo xam ne dina permettre en tout cas lu bëri ci euh, soxlaay askan wi. Ah. ñu mën ko lijjanti et je pense que loolu aussi c'est c'est très important ñoom c'est très normal ah que ku mel ni moom moom. Euh, defe naa man mu jug fi jóge fii dem assemblée nationale moo gën a moo gën a leer <laughs> duggaatam biir assemblée nationale. maa ngi dégg si biir xam muy wax ne dinañ dem xaw ma liste indépendant pour wuti ji xam naa mu wuti yi plus forest mhm. mais en actuellement fi mbir yi toll moom gis nga euh, stratégie bi mu tegoon mooy euh, mais est-ce que xam nga ne. Cheikh Bara Dolly bii nii amul du mu yàkkul président Bassirou Diomaye Faye yi bi ñuy jub ci élection présidentielle yi. Mhm. wax na ko. Euh, moom du jomaay que benn candidat de substitution la xeeb daal wane xeebeelam ci ki nga xam ne euh, moom moo di le président Bassirou Diomaye Faye mhm. quelques mois après mu bëgg taxawaat ne moom dafa yàgg ànd ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekk bëgg a euh, buruxlu ci mbir yi peut-être que il s'est rendu compte que ça n'a pas marché parce que li ñu xamoon dem ak bërki démb mooy soo demee ba xam ne fee doxut nga jéem a transhumer dem feneen mhm. mais li président wala li premier ministre wax euh, ci mbir moomu wax ne fu waay ne woon ba le 24 mars na nga fa toog ku ko hmm. dégg di nga xam ne kat fii nii yooyu moom sa marche pas. Hmm. donc fi mu ne moom ñoom li ñu war a def mooy wax dëgg yàlla ku ci nekk euh, dem noppalu ji wala xool leneen loo xam ne mën nga cee yëngu. Hmm. nga yëngu ci ku ci bëgg a euh, monter entreprise wala nga bëgg a def leneen ak leneen nga dem def ko. mais askanu Sénégal tey dafa soxla des gens yoo xamante ne tey ku si nekk mën nañ la évaluer ci député. Mm-hmm. am na député yoo xam ne sànq on a donné l' exemple de Guy Marius Sagna mais soo ko évolué ci deux ans yi mu def à l' assemblée nationale di nga xam ndax kii da nga ko war a reconduire à l' assemblée nationale wala da ko war a génne. Mm-hmm. te législative yi occasion la pour loolu mooy député bu nekk ñu évaluer ko kii bi ñu ko falee ak léegi moom euh, ban taxawaay la amoon. Mm-hmm. nan la ñu war a doxalee ak moom ndax dañ ko fee war a bàyyi am déet pour man loolu moom mooy euh, question bi même si vote bi du nekkul de façon individuelle mais sénégalais itam euh, dinañu xam ñan la ñu bëgg a jox une majorité à l'Assemblée nationale te ma jàpp ne il faut une majorité confortable à ce régime là parce que askan wi daf leen a wóolu ba fal leen. Mm-hmm. Euh, ñu am lu ñu war a doxal jàpp naa ne loolu ñu war a doxal tey. Mm-hmm. il faut que ñu am en tout cas une assemblée boo xam ne nii dinañu nangu. dem ci benn sens bi parce que gëm naa ne tey euh, réew mi war nañ mën a am assemblée boo xam ne. Mhm. Euh, vraiment niveau bi dafay dafay yéeg bu baax a baax a baax te foofu la réew mi toll. Mhm. tey su problème yi bëree il faut de vrais combattants yoo xam ne dinañ am les vraies solutions ci problème yi. Mhm. mais réew mun a métti ba pare ñu am ay députés yoo xam ne tout le temps mais soo leen déggee ñuy wax ay waxu xeeb yu xeebu la ñuy wax. surtout handicap bi gën a mag si réew mi mooy euh, ex. Euh, majorité bu euh, assemblée nationale bi di euh, député yu benn bokk yaakaar yi. Uh-huh. nga xam ne mais da ngay gis ku taxaw si kanamu assemblée nationale bi. di uh-huh. tagg président wala ministre bi ñëw nga war ko wax soxla askan wi ngay tagg ministre bi. ak uh-huh. naan man président Macky Sall moom ma fi indi lu ma sant ma def ko moom parce que moom moo ma indi ci assemblée nationale bi donc je pense que yooyu yëpp war na nekk de de mauvais yoo xam ne. fàttaliku lañ ciy am mais que Sénégal kat dem droit vers beneen xeetu doxalin boo xamante ne tey mais ni ngay gisee si si biir exécutif bi ay. xeetu doxalin yoo xam ne du dafay euh, wute ak la ñu daan gis dem ak bërki dem ñu gis itam ci côté législatif bi xeetu doxalin boo xamante ne nii wax dëgg yàlla mhm. euh, législature la boo xamante ne ñu ñuy naw lañu ci seen doxalin xam lan mooy les vrais problèmes euh, des sénégalais. ba pare di si taxaw saa su ne ci li nga xam ne nii moom mooy soxla yooyee. defe naa lool la Sénégal soxla. exactement comme ni nga ko junjee loolu rek la Sénégal daal di soxla alors euh, Cheikh Bara gis nañu euh, benn communiqué bi nga xam ni mi ngi bàyyeekoo ci groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar di leen si dikk léegi léegi pour gën ko